xëy nañu euh, ñu informé ñu atelier bi day tàkk bi ñu ñëwee fekk nañu tàkk-tàkk bi yaatu na tàkk-tàkk bi metti na tàkk-tàkk bi aussi bàyyiwul dara ndax superficie bi 600 mètres carrés la mais lépp dafa tàkk ba jeex génnewunu dara dara dara dara génnul loolu aussi ñu nangu ne dogal la suñu borom wàccee ñu nangu ko Euh, nit ñi aussi bokk ko ak ñun muy xarit yi muy mbokk yi muy dëkkandoo yi muy artisan yi fii nag dafa nekk atelier boo xam ne atelier la école la centre la maanaam ci atelier bi gën a mag ci région bi ci la bokk di servir ba Pout di servir ba Morolan di servir ba Xombal ak village yëpp presque ñëpp fii la ñuy usine menuisier yu ndaw yi amul équipement yëpp fii la ñuy usiner donc atelier la boo xam ne bu taxawee rek day feeñ ci ci dëkk bi. def nañu évaluation bi def nañu constat bi. Euh, bi ñu defee évaluation bi ñu ngi euh, au plus de 62 millions xool yàqu yëpp calculer ko chiffrer ko ñu ngi ci 62 millions euh, machines yëpp ay raboteuses ay ay tour ay ay tour grand modèle ay petit outillage donc li fi yàq ci machine ëpp na 15 machines amul benn bu ñu sauvé waaw yëpp. yi nga xam ne daal lakk laal na leen ñu ngi toll au nombre de 23. waaw xanaa ginnaaw ba dogal bi dalee suñu kaw ñu ngi ci sant yàlla baax. ndax dogalub suñu borom moom ku mu dal sa kaw la ca war a topp rek mooy sant yàlla euh, te di ko masawu marché bi yëpp euh, yàlla dogal na bi lakk gi amee nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fi nekkoon bande bii yëpp bagage yi fi nekkoon yàlla dogal na bari na euh, lu mel ni soble ak bagage yi bitik ak këriñ ak mat yooyu yëpp mu ngi woon ci bande bi fii ku ko gis ku ko xam xam ne amoon na ay bitik yu ñu doon jaay ak magasin bu nekkoon fii boo xam ne magasin soble la woon yooyu yëpp amoon na fii ak bagage këriñ yeeg mat dépôt matt bi lépp a ngi woon fii te yooyu yëpp yàlla dogal na tàkk na eh, ci loo xam ne it mënuñ ci dara parce que dañoo ñëw mënuñu ko fay sapeur avant mu ñëw di ko fay booba li fi yàqu bari na. Hmm. biñ ko xaymaa daal ñun toll na ci vingt à trente million ci li ñu xayma fii eh, sant yàlla nag ndax ñun ñoo mën a liggéey loolu eh, kilifa yu bëri ñëw nañ fii di ñu màssawu. Euh, loolu dal na xel ndax Macky Sall yabal na fi ay kilifa euh, comme Idrissa Seck yabal na fi ay kilifa ñoom ñëpp yàlla dogal na autorité yi nekk ci dëkk bi yëpp préfet taxaw na ci taxawaay bu rafet wax dëgg yàlla ñun ñëpp sant nañ ci taxawaay yi euh, taalal suñu loxo ñëppit ndax ku nattu dal ginnaaw ba nga sante yàlla yi say mbokk yi nga xam ne ak say dëkkandoo ñoom ngay yaakaar ci ndimbal ak lu mën a doon ndax ñi fi nekkoon seen alal yàqu xëy na am na si loo xam ne ñoo ko moom am na si loo xam ne yàlla dogal na moomuñu ko waaye lépp dañuy nangub dogal xam ne suñu kaw la dal. li xew tey kees euh, gëm nañ ni naqar la mais lu yàlla dogal la aussi quoi ndax bi ñuy xëy 5 heures du matin di dem bâche di wàcc ay jën. di jaay jën foofu parce que base la ñuy décharger jën yi ñu jël jën yi cent décentraliser ko ci marché bi 5 heures 6 heures la ñu woo ni marché mi commencé lakk bi ñu demee bàyyi li ñuy def ñëw bi ñu ñëwee dañoo fekk fii yëpp jàpp.

nekk na loo xamante ni lu yàlla dogal la parce que dañoo dafa tombé juste euh, mareyeurs yi surtout jigéen ñi dem Mbuur ak euh, Kayar dem ut ay jën ñëw renforcer seen frigo yi pour bu ñu xëyee ñoom tibb di jaay ñu tëdd seen kër six heures du ñu woo la ñu la tàkk bi ñëwee fekk lépp tàkk ba jeex da gis kii mun la huit cent cinquante mille la lakkale kii ni la cinq cent mille kii ni la neuf cent mille noonu daal la affaire bi demee mais boo ko xayma plus de ay dix millions et yu teg noonu daal la affaire bi demee ko waaw ñu ngi dañ ñaan daal kon ndimbal bi waaw ci ñu état bi ñu jàpp lañ ci parce que ay néew di doole ñoo ci ëpp ay ñoo xamante ni lépp ay jini jàmbur ci tefes yi ñu leen di topp am na ñoo xamante ni ñu ngi lepp ci banques yi ñu leen topp kon déjà ñu ngi ñaan état yi mu dimb leen pour ñu mën a fay situation bi nga xamante ni moom moo nekk. li ñuy ñaan daal autorités yi mooy. Thiès dafa jot pour mu am marché Thiès dafa jot mu am benn xarxamam bu bokkul ak xarxamam bi nga xamante ni moo fi nekk loolu daal la ñuy lancé boo xamante mais message boo xamante ni dañoo bëgg Macky Sall jot ci parce que toujours ñu ni balaa yàgg ñu teg xeeru marché Thiès te boobaa léegi gisaguñu dara marché jën marché jën hmm. marché jën marché poisson digne de son nom mais en tout cas daal lu mën a xew bëgg nañ marché boo xamante ni marché bu moderne la ñu man faa toog di jaay suñu jën man faa toog di daan suñu doole wax dëgg yàlla amuñu marché parce que boo dee xool fii mu njëkk moo nekkoon site bi nga xamante ni fi la oto yi débarqué mais coole wax nañu wax ban dindi leen fii yóbbu ñu pàkk pàkk ba ca kaw ñu fay désarcé kon déjà kon division am na noonu daal la affaire bi demee fi mu ne daal ñu ngi ñaan ñu wutal ñu marché ñu mën ci toog suturaw daan ci suñu doole